بسم الله الرحمن الرحيم عن أنس رضي الله عنه jëlee nañ ci sayduna anas yal na yàlla gërëm ko an innabii sallallahu alayhi wa sallam qaal mu jëlee ci suñu sang mawlaana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam mu ne thalathun man kunna fiihi ñett ngi kuñ ne ci moom wajada bihinna xalaawatal imaani dana amee ca ñett yooya neexitu ngëm yàlla an yakuna allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma mooy yàlla ku bu yonentam gënal ko ludut ak kudut yàlla ku bu wa an yuhibba al mar'a laa yuhibbuhu illa lillahi ñaareel ba mu bëgg camsi te bëggeewut ko ludul yàlla subhaanahu wa taala bëgg jaam bi bëgg nit ñi bëgg kum bëgg te dara taxut ndere yàlla wa an yakraha an yacuuda fi lkufri baada an anqadahu allahu minhu wa an yakraha te mu sib te bañ an yacuuda dellu fi lkufri ci kéeféer baada an anqadahu llahu minhu gannaaw bu ko ci yàlla xettalee kama yakrahu nim bañee an yuqdafa ñu sànni ko fi naar ci safaraay jahannama muttafaqun alayhi xadis jàng ci buxaari ak muslim ñetti yëf yi la yonentu sallallahu wax ne siiñ la ne borom mos na wala dana mos neexitu ngëm yàlla mooy bëgg yàlla ak yonant ñu gënal la ludul yàlla ak yonant ak kudul yàlla ak yonant nay wayjur nay jabar nay doom nay xarit nay alal nay wér-gu-yaram nay lumoo lumo nay sa bakkanu bopp bi sax bëgg it jaamu yàlla te bëgguloo jaamu yàlla booba ludul yàlla rekk a tax bañ dellu ci kéeféer mooy lépp loo xam ne sama borom tere na ko nga bañ caa dem ni nga bañeeku la sànni ci safara yal nañu yàlla may ñett yooyee barke yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallama amin